bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mubaraku libtidahi maymuna ya man bi am daayi taatini al bushuru yaa Moustapha yaa rasulilah yaa Bacharu yaa man bi am daa yi taati niyal busharu yaa Moustapha yaa rasulilah yaa Bacharu salla alayka bi taslimin bila adadin baaxin xadimun loo asiyaahu walxadaru yaa muntaxa yaa raxiisal akramiina maxan yaa man li xidmatihi maa xistu abtadiru salla alayka bi taslimin bila nafadin man laa sharika lahu wal ismu muqtadiru yaa mujtaba yaa imaam al mursalina mahan yaa man li xidmatihi maa xistu abtadiru salla alayka bi taslimin bila kadarin man jaadali bika fii daarayni yaa busharu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi fii ci daarul moxti dëkkub maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru. nuy waajal màggalug daaru moxti mu doon le vingt six ci weeru tubaab dëppoo ak bisub altine ginnaaw bu nu jëlee ndigal ci cheikh mouhamadul muntaka Mbacké xalifa général des mourides ndigal loolu jaar ci jëmm ji nga xamee ni moo fi nekkal borom daaru muy sëriñ Bassirou Anta Niang yàlla na fi yàgg te wér ndigal loolu nag jaar ci alhaaji maam Thierno mi nga xam ne mooy xalifa euh, sëriñ cheikh aw Balla ndigal loolu nag wàcc si ci sëriñ Khalil Mbakke xalifab sëriñ Modou Makhtar mi nga xam ne jëmm jii ñuy wooteel fii bis bii tey kilifa yii warnu lenn ci ay jëwriñ ci njabootu borom daaru toog ci jataay bi gis ngeen sëriñ Moustapha kenn ci moom moom it toog ci jataay bi sëriñ Gana Messere Makhtar mooy jëmm ji nga xamee ni waxtaanam lépp mooy kennal sëriñ Touba ak wane niñ ko war a kennale ak cër biñ ko war a jox lonte. lotes na ci jox ko ko waaye ñu jox ko illa ji ak warma ji sëriñ Ganna Messere Maxtaar nag daaru moxti gii mooy buntam ci sëriñ Touba xam ngeen ni màggal gi waajtaay wi ak fonk gum ko fonk moo waral le 26 di màggal gi waaye dimanche ba le 25 sëñ Ganna Messere Maxtaar fas yéene amal fii bis bu mag gàttandoo ko màggalu daaru moxti ginnaaw bu mu jëlee ndigal ci kilifaam yooyu sëriñ Bassirou Anta Niang xalifab borom daaru ak sëriñ Xalil Mbàkke xalifab sëriñ Moodu Maxtaar ngir waajal nag bés boobu loolu moo tax ba ñu fas yéene fee amal appel avant première waaye ku ne xam na sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ni daarul moxti sëriñ Bassirou Anta Niang gépp kàddu gu ñu yëkkati mu jëm ci màggal gi ak mu jëm ci daaru ñi ngi koy yëkkatiloo Serigne Moustapha Guèye mii waaye digganteem ak sëñ Gana Messere ñëpp xam nañ ko mu ànd ak moom ci guddi ak ci bëccëg sëñ Moustapha Guèye moomu nag dana ñëw toog fii fas yéenee jotal ay kàddu wax nu appel bi nan la fas yéenee doxe ak programme bi ak waajtaayu bis bi nan lañ ko fas yéenee organiser kon nañu maase déglu Serigne Moustapha Guèye Serigne Moustapha bisimilah. mbokk yi ci waxtu wi ci toogaay bi nga xam ne toog nañu ko fii ci kër Serigne Ganna Messere maxtar yakaar naa képp ku ko dégg wala nga gis ko jarul ngay laaj lu waral toogaay bi li ko waral mooy bis bi nga xam ne Serigne Ganna Messere Makhtar dafa jot ndigal fa mu baaxoo jotee ndigal te Serigne wax na ko léegi jóge ci Cheikh Mamadou Nil Muntaxa jaar ci Cheikh Mahamadul Basir Anta Ñang jaar ci El Hadj Maam Thierno waaye wàcc ci Serigne Khalilu Rahman mi nga xam ni mooy jëmmi Serigne Modou Makhtar Mbacké ci kaw suuf ngir am ndigal nag bis bi nga xam ni mooy bisub sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul delloo njukkal boroom daarul moxti waaye fàttaliku ak sant ak a ñaanal jàmbaaram ji nga xam ne amul lu dul moom muy Cheikh Modou Makhtar Mbacké mbokk yi bis boobu nag war a yemoog dimanche. le 25 février ci atum 2024 fii ci diwaanu Darou Mokhti ci quartier Darou Khoudoss quartier Darou Khoudoss nag boo jugee tuba bay dugg dëkk bu sell bii di Darou Mokhti doo daanu bi ngay njëkk a boo xoolee ci sa càmmoñ da nga jàkkaarloog kër Serigne Ganna jàkkaarloog baas bi foofu mooy kër Serigne Ganna Mesre Maxtaar Serigne Ganna nag ni ki may wooteel bis di ko delloo njukkal mooy kan Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mokhti ki nga xam ne juróom at yu manqué ca Mbacke Bari Jolof la Serigne bi jógee ba atum 1902 mu dajeeg Serigne bi ca Ndar nis nisfu samban te dara yàquwul mu di ko ci delloo njukkal ki nga xam ne Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul moo ko njëkk delloo njukkal mbokk yi bis boobu nag at mu ci nekk Serigne ganna dafay xool kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ba am seen ngërëmam euh, delloo leen ci njukkal waaye fàttaliku leen ñaanal leen dellu siwaat jamono li nga xam ne mooy seen i jikko ngir ndaw ñu bari mën a roy ci ñoom ren nag daf ko duppee koo xam ni fàttali ko ci koo xam ni yaakaar naa ñëpp mën nañoo jël ci moom exemple ngir ni mu àndee woon ak Serigne Touba àndee woon ko borom Daaru Moxti muy Nimraasu Njàmbur Serigne Mamar Sey kenn ku ne ràññee ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul mooy mag mi nga xam ni ren moom la ñu tànn incha allahu rabbi fas yéene koo jagleel li nga xam ni moom mooy bés bi. waaye mbokk yi nag li nga xam ni moom mooy bés bi mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo ko ŋànk yëpp yebal nañ fi seen délégation tàmbalee ko ci Serigne Khalilou Rahman mi nga xam ni mooy lépp Serigne Gana Messere Makhtar di jëmmi Serigne uh, Modou Makhtar ci kaw suuf waaye Serigne Gana ba mu noppee gi Serigne Modou Makhtar teg ko ci kanamam yabal na Serigne Amsatou Mbacké doomam mu ànd ak Serigne Modou Makhtar ñu ñëw teew teewaay bu rafet waaye mbokk yi kenn ku ne xam na ne bis bii Serigne Gana da koo tànn tuddee ko ñoo xam ni kenn du leen laajte ci réew mi kenn du leen laajte ci lislaam rawatina ci liggéeyub Serigne Touba bii ma tàmbale ko nag jàmbaari Cheikhul Khadim ji jàmbaari borom Daaru Muxti ji di Serigne Aydara Mbacke moom Serigne Ahmadou Dame Fati 244 nga xam ni ambassadeur la avocat la défense la ci yoonu Serigne Touba Seexul Xaddim waaye lépp nag ci xam-xam la koy teg ak Pastef boo xam ni ku dégg turam da nga xam ni yayoon na nag ñu jël bis bi njukkale ko ko delloo ko ko kooku mooy panewu bis bi. yabal na fi délégation bu am solo Cheikh Ablaye Ndiaye bokk ci ñi nga xam ni moo leen defar toftal leen mbooloo mu ngi nii toog ci jataay bi Cheikh Adama bokk ñi mu deftal defar toftal leen mbooloo. mi ngi nii toog waaye ànd ak euh, mboolem ñi nga xam ne fu waay gis sëriñ bi gis leen muy sëriñ Cheikh Awa Balla Samb sëriñ Mouhamed Lam mam Mame Thierno Birahim ak sëriñ Abdou seen ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la sëriñ bi yabal fii ci appel bi waaye mbokk itam kenn ku ne xam na ni mboolem njaboot gi nga xam ni euh, mooy njabootu sëriñ Touba ñëpp teew nañu fi waaye ki nga xam ne itam moom la ñu waat bis bi ñëpp ràññee taxawaayam ci réew mi ràññee taxawaayam itam ci liggéeyub Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul muy Serigne Mohamed Samb soldaaru Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul borom allahuma salli ala mawsuufi bil karami wal joodi ki nga xam ni fenn fu ci nekk nit nekk na fa jariñu ci salaatu ala nabi wala werd woo xam ne jariñ na la sa digg sa borom liggéeyal ci Serigne Touba moo tax Serigne Gana ni nag nañu jël bis bii njukkale ko ko cërale ko ko ndax cër boobu Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko ko jox fa tabarakallahu waaye itam Cheikh Abdou Silla mi nga xam ne ku ko tudd tudd lu Sylla ku ko tudd itam tudd luga mu bokk ci ñi nga xam ni juram ak mboolem ay maamam ñëpp Serigne Touba leen defar mu jël bis bii moom itam duppee ko ko ak mboolem ñi nga xam ni ñoo ko fi teewal ñëpp waaye itam eh, ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom la tuddee bis bi ci wàllu soxna yi ñun ñëpp xam nañu ni ku tudd yoon wi ci jigéen ñi da nga tudd jigéen ñu baax ñi may mbëgg a tudd ka ca jiitu mooy kan soxna Faat Jaañ Ñaasi soxna Faat Jaañ Ñaasi di soxna sëñ Abdoulahan Ndiir di jigéen joo xam ne lu baax rek ko ñor lëggéeyal Serigne Touba rek ko ñor jigéen la waaye kenn néewut bu doon góor lu baax loo ko gis ci réew mi loxo ma nga ca la man lépp ma nga ko ci def Serigne Ganna jël bis bii ko ko mu bokk ci marraine bis bi moom itam noo ngi am mbégte bu baax ci mboole mi nga xam ne ñoom la fi yabal waaye nag soxna Mominatou Kébé moom El Hadj Babacar Ndiouga Kébé mi nga xam ni lu way juróom bu baaxoo doon liggéey Serigne Touba ànd koog njabootu Cheikhul Khadim bu màggalu Touba jotee wala gàmmo wala lépp loo xam ne dañ koy tudd tudd Serigne Touba fa tabarakallahu da ngay yëg ni taxawaay bi soxna Momy Kébé fa tabarakallahu ràññeekoo na ci lool noo ngi am mbégte bu baax di am mbégte itam ci bis bi nga xam ne Serigne Gana daf ko cee boole mu bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy marraine yi waaye di sant bu baax itam ak am mbégte lool ci mboolem kilifa yi nga xam ni teew nañu teewaay bu rafet fii nga xam ni moom mooy jataay bi bu ñu tuddee sëñ dañuy tudd Serigne Moustapha Guèye Serigne Moustapha Guèye moom Serigne Amsatou moom sëñ Mabey Guèye ànd ak rakam Serigne Cheikh Tedd géey nga xam ni barki démb la jógee ci bisam waaye ba mu ci jógee dañu Serigne Gana lu mu nekk maa nga ca lu ma nekk maa nga ca bis bii man damaa wax ni lépp moo koy coordonné kon Cheikh Moustapha jërëjëf yow itam ci teewaay bi bis bi Serigne Gana lépp sa loxo la ko teg te yaa koy coordonné képp ku fi jël kaddu wala mu di ko wax lépp ci sa ndigal rek la amee kon noo ngi am mbégte bu baax ci teewaay bu solo boobu nga xam ni euh, def nga ko waaye itam bis bi Serigne Gana daf ci am ay invité d'honneur yoo xam ne ku tudd réew mi ci lu baax tudd leen invité d'honneur yooyu mën nañ cee tudd kan Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni généralu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom Bamba fépp Bamba partout Bamba merci ki nga xam ni la waykat boo xam ne Cheikh Bamba dem na fépp daj na fépp woote na fépp faj na aajo yëpp bu doon mbubb boo ko solee la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu jàpp ko lool bis bii Serigne Ganna boole ko ci invité d'honneur yi waaye kan nag gaynde Cheikh Mamadou Lamine Bara Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba moom itam ci invité d'honneur yi la bokk ñoo ngi koy am mbégte lool ak mboolem mbooloo mi nga xam ni yabal na leen fi di jàmbaar lool diggante mag Serigne Gana ñëpp xam ko Serigne Gana njukkalee ko bis waaye itam Serigne Khadim Lo Gaydel mi nga xam ni boo tuddee lu baax ci yoon wi tudd ko ñi mu defar bari lool waaye mu nampatal leen nag ci kan mooy Serigne Touba si Amadou Bamba Khadim Rasoul am mbokk gu dox diggam ak sëriñ Gana te mu rafetal ko lool Serigne ganna jël bis bi moom itam delloo ko ci njukkal waaye nag ki nga xam ne mooy euh, Serigne Cheikh Jenn Jamhiya Serigne Cheikh Jenn Jamhiya boo ko tuddee tudd sëñ Gana addinaam bi lépp mooy defar ak boole ba tax mu am turam wu rëy wow waaye itam lëggéeyal Serigne Touba jaaree ko ci mbooleem ko fi nekkal Serigne Touba ak maamam yu baax yi nga xam ni moom la ko Serigne Touba subhanahu wa taala moom ko Serigne booleel. waaye ki nga xam ne mooy Serigne Askia Touré Serigne Askia day lépp ci Serigne Gànna magam la xaritam la wóllëreem la te sëñ Gànna amul lopp bis bii te du ñëpp la ci jox cër waaye jël na cër bu rëy nag jox ko ko boole ko ci ña nga xam ni mooy invité d'honneur yi waaye itam Serigne Abdoulahat Ka. mais de la commune de Touba digganteem ak sëriñ Ganna ñëpp xam ko mu am cër boobu ci Daaru Moxti Serigne Ganna nag jëlaat cër boobu delloo ko ko mu bokk ci invité d'honneur yi nga xam ni moom la ñu jagleel bis bi waaye ki nga xam ni mooy Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba Cheikhul Khadim nga xam ni foo ko gis muy dem jërul laaj Serigne Touba rek ci lay xëy ci lay gontu ba tax mu jël turam wu rëy wii duppe ko boppam àddina bépp nangu ko ndax aw doxinam muy Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba waaye ki nga xam ni moom mooy euh, madam Dieng fondation servir Malem Odar di soxnas honorable député monsieur Omar jeng ak mboolem ñu mu àndal waaye madame jeng moom la ñu def invité d'honneur moom itam ci bis bi ci ndigalu Serigne Gana Messere li ko waral mooy cofeel gu réy gi moom Serigne ganna lu Serigne Gana nekk mu nekk ca lépp lu Serigne Gana di yëngu boo geesoo gis ko moo tax Serigne Gana jël bis bi moom itam cëral ko ci kon madame Dieng moom itam bokk na ci kilifa yi nga xam ni dañu leen a duppe bis waaye di ko di ko yëgal bu baax itam ci invité d'honneur yi ñu di ko yëgal bu baax di ci boole monsieur Mamadou kase directeur général SICAP kenn ku ne xam di gëm ak Serigne Ganna mu fonk Serigne Ganna lool bëgg ko ngir jëmmi Serigne Touba te Serigne Ganna nee na ku sa topp ngir jëmmi Serigne Touba ndombal tànk loo mën a am ak foo mën a féete rusuma laa delloo njukkal ngir jëmmi Serigne Touba kon nag euh, monsieur Mamadou kase directeur général SICAP moom itam ci invité d'honneur yi la bokk waaye DC Mamadou Guèye directeur général impôts et domaines kenn ku ne xam diggam ak Serigne Ganna Messere Maxtaar mu dëgg ci département bi dëkk fii ci Ngumba Géewul waaye diggam ak Serigne Ganna nag lépp di Serigne Touba kese moo tax Serigne Ganna jël bis bii moom itam delloo ko ci njukkal waaye itam cëral ko ci cër bu am solo bi nga xam ni moom la ko cëral ci bis bi waaye di am mbégte lool ci teewaayu mboolem njaboot gi nga xam ni teew nañu teewaay bu rafet bokk ci njabootu Serigne Mamar Sey Serigne Abdoulahar Sey ànd ak Serigne Abdoulahi euh, ànd ak Serigne Abdou Khadir Jili Sey ànd ak Serigne Fallou Dieng waaye itam ànd ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ña nga jógee ca xalifa ba di Serigne Abdoulaye Serigne Abdou Samad Sey ñëw teew fi ci ndigalul njabootuk Serigne Mamar Sey nimraasu njàmbur ñëw teew fii kon nag Serigne Gana dafay wax ni la borom daaru waxoon rek borom daaru dafa waxoon ni bu ngeen nekkee ci àddina bu leen diir kenn jam ko waaye ku leen jam bu mu nani ñu ne ko mooy lan mu ni bu ngeen nekkee ci àddina bu leen def nit lu bon bu leen ko ko wax waaye ku leen lebal lu baax bu leen tëdd nelaw te fayu leen ko ko bis bii bu ci sëñ ci bis yi lay fanaan kon ñi mu tànn tuddee leen ko bu doon téeméeri nit da leen caa tànne waaye waroon naa mën a mat junni nit nag ndax lebal nga ko réew mi lebal ko waa réew mi lebal ko njabootuk Serigne Touba te ko woo ci sa bis dana sawar lool ci fekk si la fii ci Darou Mouhty fu la waaye fekke si nag neex na la waaye amoo lu du Cheikh Modou Makhtar Cheikh Modou Makhtar Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Cheikh Awa Balla Thierno te Thierno amut bis bu gën a rëy bis bii Serigne Touba dellu see ci tukki bi te lam ko bàyyi woon dara yàquwul moo tax dañuy jël kàddu gi nag jox ko Serigne Dame Diop ci turu jëwriñ Serigne Ousmane Kama juróomi groupe yi nga xam ni ñoo lëkkale soppe Serigne Gana yi ci biir réew mi ak bitim réew kuy fekkee Serigne ganna ñoo la war a dalal kon Serigne Dame dañuy jël kaddu gi jox la ko nga ubbi jataay bi jël yëkkati ay kàddu ci turu Serigne Ousmane Kama dalal gan ñi ñu doog a jàll ci kilifa yi nga xam ni war nañoo yëkkati ay kàddu woote jëmale ci bis boobu nga xam ni moo war a doon dimanche 25 février ci atum 2024 ci Daarul Moxti ci kër Serigne Gana Messere Maxtaar ci quartier Daaru Xudóos Serigne Dame kàddu gaa ngi ñoo ngi wax ci turu jëwrin Serigne Ousmane Kama mi nga xam ni mooy jëwrini fonda jëwrini fédération bu soppey Serigne Gana Messere Mokhtar ginnaaw bu ñu nuyoo suñu kilifa yu baax yi nekk ci barab bi nga xam ni mboolem ku fi teew tey soppey Alaaji Gana Messere ñoom nga fi teewal ñoom ñoo war a war a dalal tatagal la ñoo ngi jaarale suñu nuyoo nag ci Serigne Moustapha Guèye mi nga xam ne ku ko xam-xam kook Serigne Gana Messere Mokhtar mu jot lu ñu ko ci mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw yëpp rek di wax ci turu jëwriñ Serigne Ousmane Kama mi nga xam ni moo jiite mboolem groupe yi nga xam ni ñoo sopp Serigne Ganna Messere Muxtaar ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasoul muy fédération bi nga xam ne lëkkale na juróomi di ko dale ci groupe 1 nga xam ni Serigne Mouhamadou Dianka moo nekk ci bopp bi nga xam ni mboolem groupe yi nga xam ni ñoo lëkkale groupe yëpp moom moo nekk jëwriñ ji ginnaaw bu Serigne Ousmane nekkee ci bopp fédération bi woote bi ñuy woote nag mooy woote bi nga xam ni moo ñu fa dajale ñun ñëpp comme ni ko bokk yu baax yi jiitu waxee mooy sant Serigne Touba delloo njukkal borom daarul moxti waaye ñaanal Serigne Mouhamadul Makhtar Mbacke nga xam ni moo ko xam xam kook Serigne Gana bis bi nag mi ngi doon dimanche la vingt cinq février atum deux mille vingt quatre fii ci daarul moxti booy dugg daarul moxti ci juuti bi rek foofu ngay jàdde comme ni ko Cheikh Moustapha Gueye waxee ñoo ngi woo mboolem foofu soppe mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di woo waa organisation ci njiital Serigne Latir Ndiaye waaye di woote ci mbooleem groupe yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci fondation ci fédération bi yëpp rek fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di woo ci biir réew mi ak bitim réew di wax ni comme niñ ko daa wootee rek na ñëpp fanaan si bu samdee incha allahu rabbi ndax bis bi dimanche la kon samedi ñëpp dañuy fanaan si bu ñu xëyee ci dimance ji rek mën a nekk ci liggéey bi ndax mbooleem lu nekk lu war a dem ci bis bi rek soppee ñoom ñoo ko war a taxaw ñoo ngi woo itam soxna yi nga xam ne ñoo bokk ci ci ci ci fédération bi yëpp rek ci njiital suñu waajur yaay Soda Sarr ñoo ngi woo biir réew mi di woo bitim réew di woo xarit am di jàmm wëlëre képp ko képp koo xam ne sëñ Gana mos na laa bégal senn saa ñoo ngi lay woo sëñ Gana dafa am wax ju mu waxoon soppe yi booba ba léegi loolu la mos di wax muy lu ma sëñ Tuubaa nar a fayee te naru ma koo bokk ak yéen yàlla bu bu ma ko am loolu nag kon bu ñu gën a gore loolu la ànd ñun booba ak léegi wax na ba tàyyi yéenay samay fit yéenay samay xeej yéen a may wettili yéenay ànd ak man fu ma mën a jëm loola nag as gor rek moo ko man kon fum koo xam ni sëñ Gana mos na laa bégal ndax sëñ Moustapha Gueye wax na ko léegi yaakaar naa ron na tànt bu nekk kër gu nekk boo fa demee sëñ mos na laa lebal kon képp ku sëñ mosal mosal lebal rek ñoo ngi lay woo ci bis bi nga ñëw fay suñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu teew fi ci pour euh, sëriñ Abdou Samad Seye mi nga xam ne tey moo toogee jataayu sëriñ Momar Seye lampum njàmbur santoon nu ne loolu yi sëñ Gana def neex nañu neex nañu lool ba tax na mi ngi sant bépp taalibe boo xam ne yaakaar nga sëriñ moor sa sëriñ moor Fallou Seye waaye sax gën naa sori loolu képp koo xam ne rek sëriñ Mor Abdoulahi Seye mu mag ma meññ na la rek lii nga xam ne moom la la sëriñ Mor Fallou loolee na ko def say fi bopp looloo sabab nu ànd fii tey ci man ma teew fi ak sëriñ Mor Abdoulahi Seye moom sëriñ ma Massamba Seye ak sëriñ euh, Abdoul Khadir Sey moom sëñ Haydara Sey ak sëriñ Fallou Diang euh, moom Baye Modou Diop bi waaye moom soxna Diop Sey moom sëñ Mor Fallou mu santu ne nañ fi teew te lépp loo xam ne mi ngi fi xew nu ànd kook sëñ na ci taxawaay yeeg euh, jëf yi di wax ne nag lii nga xam ne moom la def te mooy di fàttaliku sëriñ Mor Fallou loolu ak amam solo moom dañuy bàyyee rek ndax sëriñ tubaa li nga xam ne daf koo def te muy ay taxawaay. yoo xam ne ab liggéeyam da koo feeñal eh, ci ñi nga xam ne ñoom la doon defar loolu lañ jàpp ne rek moom la cay dakk ngir jamono laaj gu mu laaj ñu yëlëbaan mag ñooñee teg leen ci kanam ngir ñu bañ a juum bañ a fakkastalu ci lépp loo xam ne rek mi ngi ci seen kanam ndax jamono jaxasoo na lool te borom xam-xam bu mag daana wax ne dafa bokk ci li nga xam ne eh, dafay sabab yi gën a dëgër la min aqwal asbaabi la wax fii nahdatil albaabi qiraatu sigaari li siyaril mooy gone yi ci boppam faw ñu wan leen mag ña bu ñu leen ko wanee ba noppi nag ñu teg ci seen tànk ba njuumte yeeg rëq yi nga xam ne léeg day feeñ ci dox yi nii loola mën caa jaar ba ak jubbanti am ca sëñ Abdou Samad wax ne képp koo xam ne yaakaar nga sëñ Mor Fallou ci njaboot njabootu boppam gi ak sëti sëñ Mor yi ba ci sëtaati sëñ Mor yi ñëpp jox na leen digal ci ne nañ ko ànd ak sëñ Gana ci ci ci taxawaay kon loolu ci sama kàddu wóotu na wóotu naa ci ñi màndal ñëpp kon neex na ko lool te ba ma ko ko waxee na ko sëñ Gana kat dafa am lu la sëñ Mor mu ne ah moom de sëñ sëñ Touba doon na ko fay borom daaru fay ko sëñ Mor fay ko. nii nii la ma ko waxee. kon nag loola lu yaakaaru lool sëñ Mor Fallou nga xam ne it eh, buñ koy fàttaliku fii ci kër maam Thierno moom yaakaar naa du bees. ndax moo sëñ Ibra moog sëñ Ibrahima Diop almashaar yooyu li ñu wax ci sëñ sëñ sëñ borom daaru moo xamee su ko keneen ku ko wax. ci ay xasaayid ay di ay dawaawin lañ lañ ci def. yaakaar naa ku di gëstukat rek da nga da xam loolu kon nag sëñ Gana euh, bëgg nañ lool ci ànd kook yow di ñaan sama boroom jataay bii mu bokk jataay yi mu gërëm lool loolu lañ rafet njort lool ci bokk na ca ba noppi ndax euh, mboolem ñu baax ñi nga xam ne yaa ngi dakk ak mbaax ci ñoom ngir fesal leen ci loola lu yaakaaru la te loola yow mën a yàlla lool yàlla na ci yàlla defal lu sedd sa xol lu kawe sa njort lool ak mboolem ñi nga xam ne ànd ànd ngeen ko nuyu bu baax sëñ Moustapha sa wóllëre sa xarit boobu yi noo koy ñaanal moom it bu baax ci ay taxawaayam yu ñuy dégg lool waaye gise bi néew lool waaye loolu rek mooy solo si kon yal na yàlla jëmmal lépp rek te jubal jéego yi hada wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Xalilu Rahman yabal na fi boole woon na akub taawam sëriñ Amsatu Mbàkke mi duppee sëriñ Amsatu Mbàkke mi bokk soxna Jaara lépp boole ñuy ak sëñ moodu Maxtaar Mbàkke mi nga xam ne mi ngi ko duppee way juróom joxoon ñu digal nañu bu ngeen julee takkusaan na ngeen dem ca kër sëriñ Gana Messere teewal fa teewal fa njabootu sëñ Modou Makhtar teewal fa buntu kër sëñ Modou Makhtar yi joxoon ñu ndigalit nañu bu ñu dikkee nañu yëkkati kàddu woote ci mboolem buntu këri Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké yëpp tàmbalee ci Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne mooy jawriñu kër sëriñ Modou Makhtar sëñ Bekaay mi nga xam ne moo nekk jawriñam te ci fédération kër Serigne Sidi ñu koy soññ ci bis bi nga xam ne Serigne Gana daf koy woote fii ci Darou Mouhty mu war a nekk dimanche yemoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février muy bisum ñaan bisum sant ak dellawat njukkal maam Thierno Birahim ak dellawat njukkal Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy sëriñam mooy wasilaam mooy waay juróom mooy léppam bis boobu nag moo tax sëñ Xalil ne mboolem bunti kër yi sëriñ Modou Makhtar yëpp nañ leen ko yëgal nañ leen ci soññi di soññi. Eh, sëñ Maxtar Sill mi nga xam ne mi ngi nekk itali di jëwriñ sëñ Jili Mbakke ak mboole mbooloo mën na ca gannaawam ñëpp waaye it bu ñu ne ñi ngi soññi sëriñ Paate jóob Daarul Mooti gii la féete jiite mboolem bunti kër yi sëñ Cheikh Assa Dieye Mbakke Maxtar yëpp moom it ñu ngi koy soñ ni ko ko fàttali eh, bay sëñ Bay juuf nekk ci njaareem jiite jëwriñu kër sëñ max Mahfouz ak sëñ mbakki soxna Lo Maxtar sëñ Modou Maxtar Diop bene moom mi nga xam ne it moo jiite kër sëñ maam Thierno Mbacke Maxtaar mi nga xam ne moo soxna jaara ñoo bokk lépp moom it ñu ngi ko koy yëgal di ko soññi di ko yëgal e, mboolem buntu kër yëpp ku lim doo juum wala ku lim da ngay romb waaye bu ñu tuddee rek sëñ xale mi nekk ci bopp bi bàyyiwuñ kenn kàddu yi it ñu ngi koy yëkkati ci turu jawriñ alhaaji sumbul mi nga xam ne sëñ Modou Maxtaar moo ko waxoon na ko yaay sama jawriñ te gisaguma ci réew mi ku ma gën jawriñ ak euh, fi mu toll ci at moo tax sëriñ bi jox nu digal ci bis yi su ñëwee ñu ñëw fi teewal fi buntu kër yëpp kon sëriñ bi nee na fu ab taalibe nekk na nga xam ne bis bi sa bis la ndax kii def ki woote bis bi kenn la ci njabootu sëñ Modou Makhtar ndax bi fi sëñ Modou Makhtar di nekk lépp lu sëñ Modou Makhtar mas a woote wala sëñ Modou Makhtar mas caa nekk kenn mënu ko ca ci jikkoom ci jëfam kenn mënu ko ci ci lu ñuy ci lu ñuy teewe wala lu ñuy woote kon sëñ Xalil nee na. bisam boobu bisu njaboot gépp la nee na waxut waa kër sëñ Modou Muxtaar waaye taalibe yëpp nee na mi ngi leen koy soññi rawatina it njabootu sëñ Modou Muxtaar gu jigéen gi soxna maam Fatim Mbàkke mi nga xam ne mooy taawub sëñ Modou Muxtaar te tey jii bu fi nekkoon tey mooy taawub mooy xalif sëñ Modou Muxtaar sëñ xalil nee na moom mi ngi koy jiital ci woote bi ak mboolem koo xam ne soxna nga su ma tuddee soxna maam Fatim nag mel na ne tudd naa ko sëñ Modou Muxtaar jur ndax nañ xam ne fi ngeen di wuy si yéen a ngi fi fekk seen nawle fekk fi seen rakk koo xam ne yéen a bokk sëñ Modou Makhtar te kon moom képp bu woote woon ngeen bàyyi seen yitte yëpp fekk ko fi rawatina nag sëriñam ki ko yar di woote kon sëñ Xalil nee na mi ngi soññi taalibe yëpp soññi njaboot sëñ Modou Makhtar gépp ndax màggal gi kat bu ñëwee suba la màggul Daaru Muxti la kon fu ab taalibe nekk dana la fekk ci dëkk bi kon yitte joo mën a am ak loo mën a nekk da nga ñëw fii ci bis bi ànd ko ba sëñ def bis bi ba noppi nga soo yegg si nag ca kër ga ànd ak bi màggal gi kon sëriñ baa ngi ciy soññi ñëpp bàyyiguñu kenn bàyyiwuñ ci fenn bàyyiwuñ ci ñenn sëriñ bi it nee nañ ko daan doxee incha allahu rabbul alamin buñ ci yàlla yóbboo mi ngi soññi taalib yëpp ñu doxee ci noonee ñaan yàlla yóbbu nu ci dañ bokk fekk ko te dal ko te daj cee ngërëmul ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ak Cheikh Ahmadou Maxtaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi noo ngi leen di nuyu leen ziar tey sant yàlla ci jataay bii nga xam ne day jataayu wooteeb liggéeyu Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti waaye kenn ci jàmbari sëñ Tuubaa yi di sëriñ Gana Messere Maxtaar woote liggéey bu toll nii waaye liggéey bii nag mu jël sunu jëwrin sunu bunt ci yàlla Seydina Mukarram Cheikh Alioune Aïdara Mbacke def ko li ñuy wax parrain loola nag sëriñ bi yónni ñu fi man ak Cheikh Adama mi ngir ñu teewal ko fi waaye santal ko seen Serigne Gana Messere mi ci yëg gi mu ko yëg ci liggéeyub Cheikh Ibra Faty bi waaye yëg gii mu ko yëg ci liggéeyub Sëñ Touba loolu nag Serigne bi mi ngi woo bépp bi boo xam ne aju na ci moom naka jekk màggal Daaru Muxti ñëppay ñëw waaye yëgle bii mi ngi ci tàmbale di taawam di sunu jëwri ñun ñëpp muy Cheikh Mouhamad Dame Faty Mbacké di taawub Serigne bi. ñu koy jiital ci woote bi ak mbooloo mi topp ci ginnaawam yëpp muy fédération daara ji ak képp koo xam ne sëriñ bi jaboote na la nga topp ci ginnaaw sëriñ daam mooma noona itamit la ñuy jiitalee cheikh daam ahmadou fati Seck di jëwriñu cheikhul murabbi yëpp kon loolu bu ñu ko woowee woo nañ mboole seen cheikhul murabbi aju ci kër gi noona la ñuy wooyee jëwriñ ja féete ndakaaru muy sëriñ góor a ñang ak mboole seen taalibe yi féete ndakaaru ñoo ngi leen di woo waaye jëwriñ ji féete Thiès muy Serigne Khadim Mbaye moom it ñoo ngi koy woo ci bis bi Serigne ba koy soññ te di ko fàttali ngumba ngéewal mi nga xam ne nag mooy daara ji nga xam ne mooy cosaanu daara ji fala liggéey ba tàmbale jëwriñ Alsane Gueye Serigne ba koy woo mboole seen jëwriñ yi nekk bitim réew tey waaj màggal gi tey màggal si ñu féete Amérique ñu féete France ñu féete Italie Espagne ba ci Allemagne am na ñu ñëw ñoo ñëpp sëriñ bi ngi leen di fàttali bis bi te wax ne kat sëriñ Gana yëg gii mu ko yëg day wax ne góomu mbëggeel sungufu si yëg nee na mbëggeel bu dee góom yëg rek moo ko mën a faj kon nag noo ngi lay sant bu baax a baax ci lii nga ñu duppeel sunu sëriñ ndax amuñu ko dul moom kon nag ñu ngi woo mboole seen sunu bokki taalib yëpp ñu waaj bis bii nga xam ne mooy bisub Cheikh Ibrahim muy le vingt cinq di sësaloog bis bi kon moom mooy moom mooy laltaay bi mooy cëslaayu bis bi kon nag bis booba incha allahu rabbi danañ ko woote danañ ko ànd ak sëriñ gànna danañ sant Cheikh Ibrahima Fati tey ñaan sunu borom gën koo dëgëral moom seen gànna gën koo kattanal ba lii muy nos mu am ci ndam yu kawe kawe barke Cheikh Ibrahima Fati ñu ngi jéggulu tey woo ñëpp wasalaama rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te ko ko ñaanal Serigne Bachir wante ña nga xalifa Cheikh Ibrahim di ñaanal ak a siyaare sëñ Xalilu Rahman xalifa si Ahmadul Maxtaar ak mbooleem njaboot sëriñ Moodu Maxtaar gi yëpp di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi te ñu bàyyi ko ci sëriñ Daam Faati sëñ Aydara Mbakke moom sëriñ Daam Faati moom maam borom Daarul Muxti di ko ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko ba yéene taxawaay bi ñu ci liggéeyal ko Cheikh Ibrahima mu àggale ko ci jawriñam yi nga xam ne ñoo fi teew muy sëñ Abdoulahi ak sëriñ Adama waaye di nuyu sëriñ Abdou Samad Sëy mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mamar Sëy ni braasu Njàmbur te njaboot gi teew sëñ Abdou Lahad mën nañ ko caa tudd di mu teewal ko ak njaboot gi yëpp di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko ci kanam njaboot gi wéral ko waaye sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ne eh, mooy borom daara ci ndax daaw ci liggéey bi waaye tey ji moo joxe ndigalul ne nañu yëkkati suñu kàddu kon moo tax ñu jëfee ndigal loolu Cheikh Moustapha wax ba tax ñu yëkkati suñu kàddu kàddu gi nag mooy fii ñu jaarale liggéey bi rek Cheikh mooy bis boo xam ne daal dañ ci fàtt dañ ci sant Serigne Touba di ci delloo njukkal borom daarul moxti waaye di si ñaanal nag sunu wasila sunu wayjur wa Cheikh Mamadul Maxtaar ci bis bii nga xam ne ci weeru yi ci la wàcce woon waaye nag saa yu dellu see ñu jàpp bis bii di ko ci ñaanal muy bis boo xam ne dañ ko baaxoo amal ci Touba nga ne def nañ ko lu mat ñaar fukki yi ñetti at yi nag ñu indi ko Daarul Moxti ngir yi ci at mi mënta mënee su fee woote ñu jël bis bi indi ko léegi bu ne suba la màggal gi rek ñu def ko fi kon moo waral woote bi ñoo ñoo ko yëgal bokki jullit yëpp ak bokki taalib yëpp nii ba ñu ko tàmbalee bis ba léegi at mu jot kenn ci mag ñi lañ koy duppee mooy mag ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ndax ñooy royuwaay ñooy delluwaay ñoom la sëñ Tuubaa waxoon wa maa xaqani an sukri mawlay asbab tey ji yàlla na ñu tànn ci sëñ Mamar Si Nibra su njàmbur ngir mën ko ci fàttaliku jàngatat ay dundam jàngatat ay bindam ñu mën koo jariñoo ndax ñooñu ñooy royteef yi waaye waxtu wu ne yàlla boole na wóllëre yoo xam ne it dañu leen di delloowaat ci bis bi moo waral ñu jël sëriñ ay daram sëriñ Dame Fati mi nga xam ne kenn ku ne xam na ko ay jëfam ci daarul moxti ay jëfam ci yoonu murit di koo xam ne la Sëriñ Tuubaa ne woon isil mu rabbi laa yuridu fi li murid ilal wusula naaji yéen minal mérit aji defar ji moom nëmbul ci li ki muy defar lu mooy ñaar egg ak mucc moo tax mu defar aw nit di leen eggali seen borom lam musal la leen musal liggéey boobu nag moo tax ñu jël Sëriñ Daam boole ko ci waaye sëñ Mouhamed Samb Soldar gis nga ko sëñ Moustapha nga xam taxawaayam xam yitteem ci jëmm liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak bëgg Sëriñ Tuubaa tax moom it ñu jël bis bi ne nañ ko ci darajaal féetale ko ci moom muy ngir ñu ànd ko muy Mouhamed Samb soldat waaye it eh, sëñ Cheikh Abdou ca Louga moom it doomi sëñ moor nga xam ne ku ne xam na taxawaayam sëñ Mor Wali Silla doon suñu wëllëre doon suñu xarit tax moom it ñu ne nañu tànn fa moom it bis bi eh, cëral ko ci ndax yàlla boole nañu wëllëre wu yàgg nu yàgg ko ànd ñun ñëpp ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal bis bi yëpp ànd ko di ko taxaw te di ko liggéey muy bis boo xam ne nag namuñu ci lu mooy rek nii nu ko waxee mooy sant ci sëñ Touba delloo ci njukkal borom daaru ñaanal ci Cheikh Mahamadul Maxtaar di sant sëñ Xalil Mbakke bu baax a baax ndax moo fi yebal sëñ am sa doomam ak sëñ Mahamadul Maxtaar Diop mi doon yëkkati kàddu léegi ndax la ndax mooy borom kër gi ba ñu noppee gis baayam moom lañ joxoon suñu bopp loolu it moom la ànd ak njaboot gépp kon noo koy yëgal ñëpp di ko wax ñëpp incha allah bis bi mu war a doon dimanche kenn fàttewuñu fenn fàttewuñu ñenn yàlla na yàlla nungu lépp digalu suñu subaa tax ñu yëkkati suñu kàddu ndax moo ne ma tey moom da tax ma ñëw toog dangaa bëgg nga yëkkati sa kàddu loolu nag ndigal loolu laa doon jëfee waaye baaxu woonoo yëkkati kàddu kon Cheikh Moustapha moom it doo koy sant bu baax ndax ku ne ci coono xam ne la ci la jóge waaye teewul tey mu ñëwaat teew toog wane na ma wax ne du ma ko loo kenn nii laa ko bëggee nii lañ koy doxe mm-hmm. bu kilifa yi waxee na nga jël sa kàddu nga tontul ma leen mm-hmm. te woote ci la ca des nga bàyyi ko sama loxo kon liggéey laa ngi ne wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa kon dégg ngeen woote bu am solo boobu xam ni moo jógee ci mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fii tey ci kër Serigne Ganna Messere Makhtar ci Darou Mouhty ngir waajal bis boobu nga xam ne mooy sant Serigne Touba si Amadou Bamba Khadim Rasoul waaye dég ko delloo njukkal itam borom Darou Mouhty waaye fàttaliku ak a sant ak a ñaanal Cheikh Mahmoudul Makhtar Mbacké murid sadix ba jàmbaar ji nga xam ni dañoo mën a ñun ñëpp mën nañoo seede ni moom la yàlla fayee Serigne Gana mi nga xam ne tey la mu yéene woon ci xamle kat mooy Serigne Touba yàlla fay na ko jëm ji toog tey kon bis ngoog mbokk yi dégg ngeen kilifa yi nga xam ni woote nañ yëpp muy njabootuk Serigne Mamar Sey Nimraasu Ñàmbur dégg ngeen itam njabootuk Serigne Aliou Dara Mbacké moom Serigne Ahmadou Dame Fati mi nga xam ne boo ko tuddee ci réew mii ñëpp fa tabarakallahu danañ sawara a nag teewee jataay bi nga xam ne moom lañ ko tuddee ndax may faral di ko wax ni ko Mbàkke yow say kàddu naan guy dolli mar la ndax lépp day tegu ci yàlla sunu borom waaye dellu ci Serigne Touba Seexul Xaddim waaye nag am nga luñ mën a wax buñ ci yeggee ndax jëf nga ko ci say bokk jëf ko ci njabootu borom daaru moxti jëf ko fi ci ku fi nekk mës a nekkal Cheikh Ibrahima Fati borom daaru moxti Serigne Cheikh Abdou Silla dégg nga fa tabarakallahu njabootu Baye Mor ñoom nee nañ fu sëñ Gànda nekk mel na ni ña nga fa tabaarakallaahu mboolem njabootu Baye Mor gi yëpp mel na ni ñoom itam ñoo ngi ci biir euh, délégation bi ñëw teew ci wàllu marraine itam dégg ngeen ko soxna Fatou Diagne Naasi ak ajaratu soxna Momi Kebe moom alaaji Babacar Ndiouga Kebe ñoom ñëpp ku ci nekk sa diggante ak Serigne Gànna dafa rafet lool moo tax itam ñu cëral leen bis boobu Serigne Gànna di ko yëgal bu baax itam Serigne Mor Diagne ca Njaañ diggante ma Serigne Gana àddina bépp mën nañ koo seede noo ngi koy yëgal bis bi at mu ne da koy teewe ànd kook ñun ba mu jeex tàkk docteur Souran directeur hôpital Cheikhoul Khadim bii ci diggante Darou moo ak Touba sëñ mi ngi koy woo ci bis bi di ko sant di ko gërëm itam ci seen diggante bu rafet waaye Cheikh Daouda Seck moom Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ni foo ko fekk mi ngi liggéeyal Serigne Saliou ci daara yi ci dongo yi ci mboolem li nga xam ni Serigne bi ci la tegoon ay tànkam ma ngi cay liggéeyal Serigne bi sëriñ baa ngi koy woo ci bis bi di sëriñ Gana Messere Maxtaar mbokk yi bis bi nag sunu digganteeg bis bi juróomi fan yi ci des yëpp sëriñ Gana bis bu ci nekk màggal lay doon fii ci këram ci Darou Mouhty bis bu ne dinañ def plateau spécial boo xam ni dañuy tànn kenn ci mag ñi àndoon ak sëriñ Touba jagleel ko ko ñu tànn palaato boo xam ne dinañu ko jagleel euh, sëriñ Mor Roqe Bousso yaakaar naa bu ñu ko waxtaanee woon mel na ni sëriñ bi la ñu waxtaanee danañ tànn benn plateau boo xam ne danañu ko waxtaanee sëriñ Ahmadou Diaw Paxa sultaanu aarifin waaye danañ tànn palaato boo xam ne danañ ko waxtaane Cheikh Issa jenn mi nga xam ne bu ñu ko waxtaanee waxtaanee yoon mi waaye dinañ tànn palaato boo xam ne nag ko waxtaanee ki nga xam ni mooy Serigne Mamar Sey Nibrasu Ñambur mi nga xam ni boo bëggee gis xam kat mooy borom bis bi di borom Daaru Muxti demal yëri am mbindam fa tabaarakallaahu ni ko sëñ Abdoulaye waxee sànq waaye dina am plateau boo xam ne dañu koo jagleel koo xam ni fekkewut mag ña waaye mag ña yóbbuluñ ko dara hmm. muy sëriñ Aliou Ndeye Dara Mbacke moom sëriñ Ahmadou Dam Fati fa mag ña tegoon seen tànk ci bëgg yàlla ak ko yonentam ak lëggéeyal ko fa la teg tànkam ba am ngërëm ba ku mu gërëm fa tabarakallahu nga am ngërëm ba nit ñu baree bari topp loo doy loolu moom it danañ ko jagleel plateau boo xam ni lépp dañ koy waajale bis bi insha allahu rabbi dina am plateau boo xam ne dañu koy jagleel sëriñ Abdou Karim Touré sëriñ Abdou Karim Touré bu ñu ko tuddee fa tabarakallahu nga gis pas-pasam bu mag ba ak itam mboolem waxam yu yéeme yi nga xam ne bokk na ci la mujj a wax a tabarakallahu mooy ndekete li aju ci Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp mëtuma am ramu kooku nag la mu jëf diggam ak Serigne Touba ba am ba moom war nañ koo fàttaliwaat ndaw ñi ngir ñëpp war a roy ci moom yi daal màggal gi moom mi ngi kër Serigne Ganna Messere Maxtaar lépp ci xam-xam lay doon mm. waaye tegu ci fàttaliku jël dalil nag mag ñaanal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bis ba nag booy ñu càggee mi ngi war a doon dimanche ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci kër Serigne Ganna ma fàttali leen ko boo jugee tubaa booy dugg dëkk bi doo daan bi ngay njëkk a jot ci sa càmmooñ boo xoolee penc moomu mooy kër Serigne Ganna Messere Maxtaar mi ngi ciy woo ñëpp sëñ Gana nee na ku mas a lebal ba lay lebal bis biyee tax lu ko waaye di lebal bisu borom daaru attan na ko ndax borom daaru ku mu fat doo fanaan biti di ci woo itam mbooleem organ de presse yëpp moo xam télévision yi moo xam site internet yi la moo xam rajo yi la moo xam presse écrit la moo xam mbooleem sa réseaux sociaux yi la ñoom ñëpp mi ngi leen di woo ci bis bi ndax ñoom ñoo ko sëñ Gana ñoo bokk waar wi lu sëñ gànna di lëggeel sëriñ Tuubaa ñoo ci taxaw ànd ko te mooy tax mbokk yi man cee jariñu ñoom fa tabaarakallaahu ñoo ko sëñ gànna ñoo ànd liggéey bi ñoo ngi leen ci wooy ñoom ñëpp mbokk yi ñëw nag dafa am ñoo xam ne ku tudd sëriñ gànna tudd leen ci wet sëriñ gànna ñoo koy wettali bu sëñ gànna wettali ko ñoo koy dalalal gan ñi man naa mën naa cee tudd koo xam ni mooy sëriñ Adama Samb nga xam ni boo ko tuddee tudd sëriñ gànn keroog ba ñu fondement kër gii ba fi ñu toll taxawaayam ak jëmmam ak njabootam mos a jóge ci Serigne Ganna bis bii day takk ndigam ànd ko Serigne Ganna Serigne Modou Mbuub fa tabarakallahu moom itam noonu la koy defee diggam ak sëriñ Ganna ñëpp xam nañ ko waaye koo xam ne ku tudd Serigne Ganna nag tudd ko ndax fu mu jëm ñooy ànd liggéeyub Serigne Touba bii lu ci waaye xamut ku sëriñ gànna xamu ko mën na la ko nettali muy Serigne Daaru Jéey Serigne Daaru Jéey moom itam fa tabarakallahu bis bii lu ci bari ci loxoom la nekk ñoom ñooñu ànd ak soppe yi Serigne ñoom ñëpp ñooy xaar gan ñi leen teral leen bu ñu ca jógee nag dugg ci màggal gi yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.